dina jafé ci pour ñu exprimer suñu joie suñu contentement ci action yi nga xamné commune Nous Moussa ndax ci suba rek la joggé jógee Keur Moussa doon fa def pose première pierre benn poste de santé fa def tay ñu wat que ci heure yi may wax ñu doon jot école élémentaire bi nga xamné tabax fi ñetti classe té que continuer

mais vraiment mook monsieur le maire ak monsieur le bi fi nekk ñu dogal ci ñu liggéey ci liggéey bu mucc ayib parce que ku nekk xam na ne ay village fu ñu koy toogal nga dëgg ay coow dëgg ay gréw dëgg ay lakkar musel mais ñun loolu lépp amus dañoo waxtaan ba déggoo ci ay kàddu ah vraiment Dangote ñun suñuy partenaire lañu te ñun village bi ñun benn kaddu lañu bu kenn waxee rek amul benn problème lépp ñoom la ñuy wax te ñu ngi ñuy jàppale parce que boo gisee classe yi bu ci nekk defe naa vingt cinq élèves la war a def mu mot trois classes loolu amal nañu solo parce que diñu fi ñuy dem di fa jàngi presque mot na un kilomètre et demi kon bu ñu ko amee suñu buntu kër lu dul sant yàlla te du loolu rek am nañu marché am nañu école am nañu dispensaire loolu lépp ci Dangote sokkee ko boo gisee électricité bi ak ndox mi yëpp ñoom ñoo ko fi def kon nag vraiment defuñ lu dul kontaante ak ñoom Dangote ak Galan histoire bu yag la ndaxte Dangote mo fekk ci Galan fekk ko ci dëkkuwaayam ñu tabax fi usine bi village bi nekkon ci bi digg usine bi donc te ñep xam nañ ne usine mënul dekk ak ay dëkkuwaay ak ay sam ñu waxtaanee ci dañu amone projet pour outal len fenen fo xamantene ñun ñoo len ñoy jënd suuf yi ba pare tabaxal len kër yi moy kër yi ngeen gis ni ñu tabax fi donc loolu bañ koy def ñu ko doon def ak monsieur le maire mi taxaw ni ak chef de village bi fion mi ba yàlla na ko yàlla yërëm ndaxte maa ngi fàttaliku c'était la première fois mu gis chef de village bu jigéen au Sénégal mu nekkoon nag jigéen ju mën góor jàmbaar donc lépp li tey lépp bu taxawee yàlla ak moom ak monsieur le maire tax donc ñu tabaxal leen ay kër boole ci benn poste de santé marché ak école bon école ay salle de classe plutôt